ndax bés bii tey kenn foogu ko woon cent quarante et un six personnes ne am na ñoo xam ne yéen la waaye nag yaa ko mérité parce que da nga koo liggéey ma xam ne gàcce a président assemblée nationale gàcce ngaalaama président groupe parlementaire ndax su ngeen ko wonewutoon bésu tey bii du am président groupe lañ dénk député mu ubbi bureau alalam lépp amul audience amul dara ku ñëw yàgg mooma yem mu jox boppam nit ñi nit ñi delloo ko seen bopp moo tax bésu tey bi mel nii président assemblée nationale ñu gërëm na sant na ndax yàkkamti woo te xam nga fi nga jëm te xeebuloo kenn te doo xañ kenn àqam yaa ngi yore statut bi yore règlement intérieur bi lu xew rek nga teg ko ci loolu moo ñu fii tey ñi nga xam ne dañoo bëgg réew mi ma yaakaar ne opposition bi am xam-xam te yeewu mooy opposition bi nga xam ne dafa bëgg réew mi ëllëg réew mi wateel ko mooy koo xam ne bu biir sa jaaree yoon mu wate ko bu biir sa jaarul yoon du ko wat kooku bu ëllëgee danga xam ne bëgg na réew mi parce que réew mi la bëgg a am na fi yaakaar naa ne am na jigéen bi fi wax am na góor bu fi wax defe naa ne ay opposition lañ waaye tey ba ñu xamee ne lii mooy dëgg te bëgg nañ réew mi danañ la wateel ma yaakaar ne ñun Benno Bokk Yaakaar bii ñuy wax pour ñun taxul ñuy wax ne danaa wat sa moom du pour ñun ñu ko wate ñun nga wate parce que ñun dañuy wate ndax mooy suñu liggéey wate ñu fi indi pour réew mi jëm kanam parce que débat mooy dundal assemblée nationale mais wate mooy dimbale gouvernement képp koo xam ne nangoo wate te yow leer na leen ci bit bii ci la réew di dund ci ngay fayee te bu weer dee kenn du la njëkk trésor yaay ni kafe aku kan sa ya, ya, dia jël sa essence te bokku ne réew mi la bëgg waaye boo amee jom tey ba doo wate benn waroon ngaa mën a am doylu bu toll nii sa sol bi nga delloo parce que dicté bi moo la koy jox loolu de ñu ne deel waay soo ko jógee boo tasee ministre bi foon ba foonaat ñaan ko ojaan ah boo tasee directeur douane neexal boo tasee directeur impôt neexal te yow doo leen watal est ce ni di kafe aku. kon ndax kooku bëgg na réew mi kooku dama ne sans débat mosu fee ñàkk ca commission ya nit ñi bu ñuy wax kuy wax dof buy wax nit na ko déglu xelaat man mosuma gis sans débat assemblée nationale mosu fee am réew mi assemblée leen jiite ñoom ñëpp bopp yëpp ñu ngi fii tey toog ñu ngi ci commission yi toog suñ defee commission ba pare buñ waxee buñ wat buñ ñëwee plénière buñ wate waaye danañ wax lu leen neex ban sans débat ku fi ñëw wax dafa xottee ana sans débat ba ana sans débat ba kan moo fi waxul ku fi ñaan audience may nañ la ku ñëw wax ko lu la neex ba sa daa jeex ñu dàq la nga dem sa yoon lan ngeen bëgg sans débat moo fi am 100 pour ministre monsieur le président nag soow li wax nit ñi ñoo xiir Moustapha Niass député boo fi gis boo boroon naa jàkkal yow def ni maa law def tàgg la ko xottee monsieur le ministre député boo bu doon seen sago ñu jàkkaarloo yow tagg la ba nga xottee ba xottee parce que ñëpp a kontaan réew mi kanam la jëm Macky Sall moo am chance réew mi am chance ñun la yàlla dimbale ma ne ñuy déglu ak tasaare kat ci wax yi nga dégg ñaan sans débat sans débat fan la am ku ne sans débat am na na ngay ji borom bi ñaata yoon ñaata ñu ko wax ci ñun ñaata ñoo wax ci bi ma am na fi opposition yoo xam ne gën naa ne man ànd naa ñoom sant naa parce naa bëgg nañ réew mi parce que réew boo ci nekkee da ngay nga teg ci sa tànk nga ne am naa xam-xam nekk nga député juróom-ñaari yoon nekk nga ministre juróom-ñaari yoon nga ñëw fi naan opposition bu am xam-xam ak euh, nangam bu ñàkk xam-xam est-ce que di nga a laaj benn diplôme su ngeen ba pare pour seen njàng mi njëkkee bi ci àll bi yéen ak yéen yéen ak ñoo ma am la. parce que ba jóg réew mu ne la fekk ba nekk assemblée président assemblée nationale dama ne nañ wax dëgg ñuy déglu presse bi tasaare nañ wax dëgg ñun ñuy wax nañ wax dëgg souvent am na ñoo xam ne fii la ñuy taxaw naan nanga ma fakkaw nanga ma fakkaw te dara du ci dëgg. merci man réew mi kanam la jëm. di ngeen yaakaar ne ngeen gën a am la xaar asalaamaaleykum